salaamaaleykum waa Sénégal man la Mbaye Diaw secrétaire général syndicat démocratique des travailleurs du transport routier de Dakar Dem Dikk donc di wax ak waa Sénégal ak grève yi si suñu mbokk camarades syndicalistes yi nga xamante ni ñoom ñoo diriger grève transporteurs yi di leen wax ni ñun waa Dakar Dem Dikk suñu xol neexul am na lu ñu metti trop ñu gisee suñu kaar yi ak suñu agent yi nga xamante ni ñu ngi leen di agressé depuis démb ba tey di toj suñuy kaar di toj suñu outil de travail loolu nag. ñuy wax nag état bi na jël ay responsabilité parce que droit bi may transporteurs yi grève moom moo ñu may ñu dem liggéey ñun bu ñu grève Dakar Dem Dikk bu grève transporteurs yi dañ ciy kontaan seen affaire day baax seen i car day fees seen lépp day baax ñun nag population bi lañ fi nekkal moomeelu askan wi la kenn moomul Dakar Dem Dikk du Macky Sall du du du Mansour Faye kenn état wu Sénégal population Sénégal moom moom Dakar Dem Dikk ñuy ñaawlu nag. jëf yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def ñooy yónnee ay nit ñuy toj suñuy kaar di koj suñuy kaar jot nañ seen i jot nañ seen i publication jot nañ seen i communiqué ñuy wax ci Dakar Dem Dikk di wax ci Sénégal Dem Dikk loolu tamit dañ koy ñaawal ba fu ñaawlu yem di wax ni nag ñun tey lañ gën a taxaw pour transporter population bi tey lañ gën a taxaw pour def service public parce que Dakar Dem Dikk moomeelu askan bi la te it def loolu nañ bàyyi xel bu baax a baax syndicalistes yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo nekk ci kaw parce que mun ma comprendre tey syndicalistes yoo xamante ni ñoom ñooy diriger grève bi te ñoom ñëpp ay transporteurs lañ tey bu fekkoon ni ñoom dañ ne aftu yi nañ utal chauffeur contrat nañ utal receveur yi contrat mais ñoom ñi nga xamante ni ñoo diriger grève ñoom ñëpp ku si nekk yaa ngi exploité chauffeur yeeg receveur yi na chauffeur si yeewu na receveur yi yeewu na Séné waa Sénégal yeewu.